situation bi nag metti na metti goo xam ne mënuñu ko wax mënuñu dëkk ci koñ ku jóg ne Adama fay espace vert boo gis indi sa doole def ko fi suñu doom yi amuñu fu ñu fawe suñu doom yeeg suñu jëkkër yi amuñu fu ñu gaara seen oto fii tey bu fi afaan bu fi eh, safaan amoon oto du fi dugg oto du fi génn il y trois mois de cela lakk am na fee ca gannaaw pompier ñëw na fi deux heures du matin ba sept heures amul fu mu jaar ndax yoon amu fi Ouest Foire ku ko dégg bëgg fi jënd kër boo fi dëgg jéppi waa Ouest Foire kii ñëw fii di jaay doole nee na Adama fay ko fi jox Adama fay ne dafa am lu mu sumb lu mu sumb eggagul mu ñëw bëgg dugg fii dañ koy xam ni ko ñun xamuñu Adama fay suñuy doom ak suñuy jëkkër seen doole la ñu boole ba dem jënd fii kër dañu wax ne waa ji fii espace vert nañu may jàmm Ahmed Fall na seet yàlla yonent bi bu dee senegale la am na xaalis te jullit la terrain yi du jeex ci Sénégal na wuti terrain. fii espace vert la bi deme demee impôt domaine dañ ñu wax ni ñu fii même ki tabax fii muy jaabi dañ ko ni fii ci des espace vert la du nekk kër suñu doom yi amuñu fu ñu football amuñu fu ñu defee dara taxawaalu. waaw mais balaa gaari oto am. xale yi ba pare xale yi ndaxte ñun fii dañuy am ay màggal taalibe Seydina Limaamu Laay fii laay defee sama berneel ak sama yëpp ak samay nit taalibe Cheikh yaa ngi fi ñëpp ngi fi fa tabaarakàlla ngi bëgg nag ngeen jug jàppale ñu ba xam ndax Ouest Foire ndax ku neex dëkk am ku neexul dëkk. yi ngeen gis nii plan bi ngeen gis nii ku ko gis xam ne fii kër amu fi waaw kii nga xam ne moom moo fi tabax mi ngi tudd Mohamed Fall. fii nii la nekkoon kër gii jàkkaarloog ñun fi la nekkoon ba mu fi nekkee dégg nga mu xooli saa weer bi dem lijjanti këyitam xamul fan la ko lijjantee ñëw di ne na waaw ne bum koy bum ko ñëwee pour tabax ko waa quartier bi résister ne ko fii du kër fii espace vert la fii du kër ba ma si jëlee gendarmerie premièrement gendarmerie ñëw na def liggéeyam arrêté ko mu ñëw di tabax ma woowaat waa gendarmerie ne ah waa ji kat mi ngi tabax dégg nga gendarmerie ñëw arrêté ko terewul mu continuer tabax parce que moom mu ne jabaram doomu bàyyi Marème fay la lu ko neex lay def dégg ma wax waa quartier bi nañu bind benn lettre adressé ko madame la préfet ñu adressé ko vraiment ñoo ngi koy sant di ko gërëm mu jël lettre bi loolu doyut ma ànd jigéen ñi dem ba ci madame la préfet wax ko ko ma taxaw na fii am na lum ñu wax ñëpp dégg nañ ko même kër gee ñu janoot dane na fi jóg dafa waxtaan mooy kër galit dindi leen ko ci yoon la nekk waaw mu ne fii di la ciy prononcé parce que dana seet ba xam këyit yi fan la ko waaj a amee mais dañoo am démb situation bu doy waar boo xam ne kenn xamul nu mu demee parce que affaire banditisme moo fi am li fi am mooy dañoo toog fii benn waay ñëw di gaare otoom Mohamed Fall da ko doog fi gaare coow li jàppandoo ñu woo ma téléphone biñ ma woowee téléphone ma ñëw di dégloo di wax ci mbir mi ay nervi yi ñëw dégg nga ñëw ni waaw ñëw taxaw ne ku def lii ma def noonu sa ndey jaar fu bon saaga mag ñi fi nekk jaxas fi yëpp yor seen i ngànnaay man mi nga xam ne chef de bi la man mi nga xam ne chef de quartier bi la ma yëkkati sama téléphone woo commandant bi ma ko wooyee mu ne ma coupeel monsieur le délégué ma woo brigade bi may coupé la ma benn nër wi fekk ma taxaw sama bët bi gis nga ni mel waaw ñii ñoo ci jàpp waaye konoon musibaam ñu dindee ñu defaraat. ana am kii bu nekkoon ci dëgg li dina am. ana kii bi man lii bu may fay ay milliards sax du ma ko def. da ngeen a gis mu ànd ak kenn. ma ne da ngeen a gis mu ànd ak kenn waaw. buddi leen lépp. waaw. ana katal ana katal. suñu ko ni ñuy woo woo ñu kër. waaw na jabar jee ne